jërë jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am ci euh, jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu fas yéene dalal ki nga xamante ne bii mooy euh, Pape Thialis Faye jiite Leewtoo production euh, gannaaw ba mu jógee ci événement bu mag bi doon dox ci diggante Tapha ak Boy Niang te Sénégal yépp doon ko xaar wante àdduna yépp doon ko xaar Pape Thialis ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñu ngi lay fay Babacar di la nuyu di nuyu équipe bi nga àndal si Leewtoo muy équipe bu Leewtoo bi. Ah. gannaaw ba nga jógee ci événement Tapha ak ki nga xamante ne bii mooy Boy ñaar mbër yi nga yàgg leen a jox avance mu yàgg trop at ak lu tegu euh, ñu yàgg ak xaalis bi euh, naka naka nga dundee woon loolu coow li bari woon trop tamit. waaw mais c'est un dépendement volontaire xam nga tey boo joxee nit avance donc yàlla def Covid am. depuis deux ans Covid bi presque mi ngi lëmbe Sénégal lëmbe monde bi donc activité mënul am donc. Euh, état nanguwul activité am. bu ñu bëggee reprise bi aussi état dafa de report activité yi. donc bu nekk loo xam ne si état la dépendre. donc ñun moom la ñu subir yeneen promoteurs yëpp loolu la ñu subir. donc boo xoolee Ama Baldé Modou presque def na trois ans. Euh, site Papa saw def na deux ans ñun def nañ un an et demi. donc loolu yëpp lu ko waral mooy Covid bi. ñaari mbër yi demoon ba daanaka sax euh, commencé woon di la sëkkatal ndax ngir bëgg a bëri. waaw mais loolu loolu loolu jàpp loolu en fait stratégie bu ñu tegoon la rek parce que boo xoolee si diggante bi Boy Niang signé fi beneen contrat. Uh-huh. ba euh, Tapha Tine aussi amoon na proposition beneen contrat. donc xëy na génn bu ma génn wax bu ma wax moo tax loolu antuwul. Uh-huh. mais loolu yëpp c'était juste mettre la pression pour mën a pour ñoom ñu mën a nekk si yeneen komba uh-huh. donc euh, te loolu comme man man maa yore contrat bi man man la ñu war a bëreel doo man je prends mon temps ba ma xam kañ la ñu war a bëre ñu bëre ko mais duma ma topp seen pression pour que man ma def lu ñu bëgg man damay def au contraire li ma bëgg loo xam ne làmb boo ko defee làmb dina ci ànd mm-hmm. gannaaw ba covid bi jàllee nga jàpp làmb ci mm-hmm. mbër yi face to face bu ñu def ñoom ñaar du ñu daje est-ce que loolu tiitalu tiitalu la woon ci événement non tiitalu ma parce loolu jàpp naa ni euh, dayoo làmb ji donc affiche boobu affiche bu mag la bu ñëpp bëggoon donc c'est très normal heure bu ñu ko kiwee mu am jafe-jafe yooyu mm-hmm. parce que c'est loolu aussi làmb ji moo tolloon foofu affiche moo toll mooy affiche bu mag boo xam ne mm-hmm. pour dajale leen day difficile mm-hmm. mais amoon nañ ci yaakaar que mën nañ leen dajale à chaque fois mu ñëw dañuy xam ne aussi suñu boroom moo ko dogal dañuy accepter et puis xool beneen jour ñu def ko mais tôt ou tard dinañ daje te foog naa ne barki dem daje nañ et loolu loolu lañ soxla woon Euh, ñu dëgmal làmb ji euh, Pape Abdou Fall tëgg ci diggante bi ñu gis coow la amoon ci diggante Papa Sow ak Siteu yow presque dix jours après wala quinze jours après yow tamit nga war a organiser li nga xamante ne bii mooy événement bu toll noonu wala événement bu ëpp noonu euh, naka nga waajee woon événement bi ak organisation bi pour li daloon ñaari mbër yële yow bañ la dal. waaw mais ñu ngi au passage ñu ngi nuyu Pape Abdou Fall di suñu mag di président. association promoteurs yi donc nekk suñu mag nekk koo xam ne moo ëpp expérience. Mhm. donc moom bu ñu jiitoo tëgg. ñu gis faay boo xam ne c'est indépendant de sa volonté parce que moom lépp lu war a def si plan sécuritaire yi euh, jël na ko. Mhm. CNG aussi def na lu mu war a def mais lamb moo nekkul doy waar donc bi faay da am wala benn affaire di ci am. Mhm. donc day nekk lu imprévisible. donc loolu amul lu imprévisible la tey mënuñu wax Pape Abdou Fall euh, dafa ci dara. parce que nekku ci. CNG aussi xëy na peut-être négligence pour ndaw la moo tax loolu am te loolu tax ne làmb ji yàqu ba état président de la république sa ba xaw na see wax. donc làmb ji bu ñu jëm man ma koy tëgg bu amoon même chose rek je pense que làmb mootul ñoo arrêté waat ko moo tax on a mis def lépp pour que sécurité am ci pour que loolu bañ am te suñu borom suturaal nañu ba loolu amu ci. donc làmb war na mën a continuer. keroog jour jouru làmb ji man ma gis lu ma mës a gis ci làmb ay xaj. Hmm. waaw loolu yëpp renforcer sécurité bi la parce que xale yi peut-être xaj yu ñuy indi day permettre nit ñi xaw a ragal. donc euh, muy sécurité privée amoon na si ñaari sécurité privée ko ñoo xam ne peut-être yoruñu xaj ñu yor xaj sans compter état lu mu ra lu mu déployé en si gendarmerie ak si police. Mm. mais loolu yëpp c'était juste rek pour renforcer sécurité bi pour événement yooyu nga amoon bañ a amati. Mm-hmm. parce que événement yi malheureux la yoo xam ne bu amaatoon rek. Mm-hmm. déjà CNG ñi fa nekkoon dinañ am problème. mais aussi euh, boo moytu làmb ji arrêté te bu arrêté ñu ñëpp ñoo si ñoo si sonn donc muy mbër yeeg amateurs yi ñëpp nañ si sonn moo taxoon il fallait mettre les moyens disponible et possible pour que au moins làmb ji mën a am ci jàmm ba pare ba jeex si jàmm. Uh-huh. Um, uh, ñu gis jouru làmb ji. Hmm. Uh, question bi ñu bëri ñu ngi koy laajte mooy que ñu gis jouru làmb ji ki nga xamante ne bii mooy Aziz ak rakk ji. saf hmm. sàpp ci làmb ji. Mm-hmm. fa lañ yendu ba ngoon jot. Euh, lan moo dox sa diggante ak Aziz ci làmb ji. waaw mais xam nga làmb ji ba mu commencé ba benn sponsor la ñu amoon. Uh-huh. muy Aziz Ndiaye. donc nekk sponsor dugg ci xaalis bu bëri. làmb ji dem ba mu war des lu tëgg ko. donc sponsor amul. te ñëpp gis nañ tey sponsor fu mu toll Covid bi donc amul benn entreprise tey boo xam ne mu ngi sponsorisé parce que ñëpp am nañ argument comme quoi que Covid bi moo tax. Uh-huh. mais ñoom. dañu gëm ni dugal nañ seen xaalis il faut que ñu def le tout pour sponsor am moo tax ñu taxaw ci te xam ne buñ ci taxawul bu baax. Mhm. làmb ji mën na am jafe-jafe. donc mhm. te comme aussi ñoom nitu làmb lañu. moo tax ñu ànd ci ak man jàpp ci bu baax. donc mhm. ba yàlla def lépp sotti. ñu bëri ne dañ la jox xaalis euh, nga nga nga àggale làmb ji. waaw mais ndax ndax nee nañ Pape Thialis dafa demoon benn instant dafa paan. non sponsor la xam nga sponsor bu ñëw joxee peut-être boo wax ni ñaata la joxe li mu joxe. gisuma tey entreprise bu ko mën a joxe. ba pare sponsor yi si ñëw encore ñoom ñoo leen indi. parce que ñoo leen démarché parce que ni relation la. donc muy LONASE di di di sede di di Pact Food yëpp. ñoom ñoo leen démarché indi leen. donc si démarche boobu business business la donc business la indi ne leen yàlla def na ni sotti na donc moo tax ñu sonn ci noonu. ñu gis ba léegi jouru làmb ji ci biir organisation bi ci biir stade bi euh, CNG jël ay ay ay ay matukaay. Hmm. comme li ko daloon ci làmb bële moom la doon sóor mu jël ñaari mbër yi ku ci nekk am sa morom ak di am sa distance ak sa morom. Hmm. mu nekk la nga xamante ne bii ñu bëri rafetlu nañu ko. mais hmm. tamit ñu gis li nga xamante ne bii mooy mbooloo mi ñëwoon ci stade bi. yow euh, bi nga bi nga bi nga bi nga bi nga bi nga ñëwee ci stade bi gis mbooloo mi lan nga yëg. c'est important ñu ñu revenir si. parce que xam nga làmb dafa am bunt yi am ay billetterie yi. am aussi biir làmb ci. te comme ñun sécurité moo ñu ëppaloon solo. il faut ñu nekk ci làmb ji ànd ci ak laxaat di ci liggéey. mais tout ce qui est organisation coordonnateur bi bàyyi Ndiaye laa waxoon na ko coordonné. donc moo taxoon tey billetterie yi amuñu ci jafe-jafe boo xoolee si biir aussi làmb ji amuñu si jafe-jafe. parce que làmb toll na foo xam ne il fallait que ñoom benn staff bu dëgër bu ko gérer. donc moo taxoon ñu ñu def ko. maintenant question boo mënee revenir si question bi nga posé woon aussi ma ma répondre si. Mhm. par rapport ak euh, ful bi nekkoon ci stade bi. waaw mais ful boobu xaalaatoon nañu dina ëpp loolu sax parce que ñi nekkoon ci biti. dégg naa dañu jaay ticket yi ba ticket yi jeex. waaw ticket yi dafa jeex ñu tëj ko et puis gisoo nañ ful bi bëggoon nañ dugg. donc mhm. am ñu nekk ci biir am nekk ci biir. donc tey jii bu fekkoon tey liggéey ak ñooñu donc ñooñu tey du ñu am xelu. dajale xaalis beeg yëpp dem seen yoon. Mhm. parce que mënoo nekk ci làmb ji bëgg a xam lu xew ci biti. Mhm. don moo tax vraiment def nañ si organisation boo xam ne. Mhm. tey génne nañ ci am na si bu am solo boo xam ne tey jii. donc loolu lañ ci mën a am. donc bi jaar jar na yëpp. Mm-hmm. am nañu recette bu takku sans compter yeneen recette supplémentaire yoo xam ne ni. Mm-hmm. c' est en dehors de la billetterie que dina si ñëw rajouté aussi. Mm-hmm. wax nga ko ci beneen côté bi muy euh, làmb dafa dox ba dem ci beneen côté ñu koy wax mode pay per muy ñi nga xamante ni bii ñoo nekk ci jaspora bi. nekk ay sénégalais bëgg làmb di topp làmb bëgg làmb ju am Sénégal ñu seetaan ko. mais am na ci ña nga xamante ne bii euh, nee nan euh, kontaan nañu ci cote yi nga xamante ne bii jënd nañu ko. non pay-per-view du du diaspora tax pay view moom question privée la parce que aujourd'hui événement fu mu toll te sponsor amuñu ko. Uh-huh. donc il faut que beneen xool benn modèle économique. mooy tax tey li sponsor yi dem joxe nga mën ci génn. Uh-huh. parce que lamb bu toll nii boo amee sponsor boo tey boo xoolee lamb ju toll nii amoo sa sponsor lu lu yegg cinquante million uh-huh. donc ak fu lamb bu toll. mooy wane nii am na problème. donc boo naree focaliser wu wala yaakaar ci sponsor rek te amoo beneen modèle économique parce que dañu si war a nekk di réfléchir di xool monde ni muy évoluer ñu def dañu war a évoluer xool na fexe ba làmb ji ñu moderniser ko ba nit ñi siy tëgg. mën ci génn. donc tey euh, modèle économique boobu ñu jël ñuy pay-per-view du pour diaspora bi diaspora képp koo xam ne bëgg na ko seetaan. toog sa kër nga war ko mën seetaan. Mhm. parce que événement toll na foo xam ne noonu noonu la war a doxee ci monde bi. Mhm. donc da nga war a dugg am sa connexion dugg seetaan ko sans nga déplacé wu dem. Mhm. boo amul temps boo nekkee ci liggéey war nga seet donc si lépp loo nekk loo xam ne tey permettre la nga dem stade. war nga mën a toog seetaan donc PPV du diaspora rek mais ñëpp la. mais diaspora moo ci raw parce que ñoom xëy nekk nekkuñu si dëkk bi. fuñ koy tëggee. donc ñu obligatoirement mooy loolu moo indi tey <coughs> moo jëlee ko ni mooy tax sax mooy tax tey mm, euh, ñu ñu génn si. promoteurs yi génn si parce que boo xoolee tey boo defee billetterie soixante millions donc boo si faye mbër yi def si yëpp. sponsor bi bu ñëwee teg boo moytul si ngay yem. donc bu amoon pay-per-view tey doo am loo xamante di nga ko si si affaire bi. loolu yëpp wane pay per am solo si si actuellement fu tol ni si monde bi. en monde bi yëpp fu mu mënti nekk. mënoo def événement dafa ko pay-per-view pour mën ci génn à cent pour cent parce que sponsor amatul. Uh-huh. donc loolu la maintenant li nga wax ni mën nekk. parce que bu fekkee ni ñi nekkoon diaspora bi la lamb diaspora point com. Uh-huh. peut être problème ak ak télé parce que souvent bu amee problème yooyu rek deux choses moo ah, ñu bëri nee soit problème la ak télé bi nga xam ne mooy partenaire parce que signal lañ lay jox. Uh-huh. donc bu ñu la joxee signal te signal bi yeggul wala muy coupé mooy indi problème yooyu. Uh-huh. wala aussi nga bañ a jënd bande passante bu mo bu mag boo xam ne nii dina mën a dina mën a seraan qualité. mais bu fekkee par bu bu seen affiche la. Ah, boo xoolee ni dox na normal. Ah. donc parce que te ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk fu ñu jëlee signal. ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk fu ñoo bokk fu ñu jëlee signal donc euh, ça veut dire ni bu kii doxalee kee doxul. souvent aussi da xam ne euh, y' a deux ou trois fois. man intercepté nañu interpellé nañu naa ñu signal bi coupé nañ ko. bon ça peut être des erreurs mais je dis que ni c'est pas du plateforme mu lambu diaspora. écho yi ma am mooy que ñi jëndee seen affiche. seen seen seen code seetaan nañ ci làmb ji ba mu jeex sans ah. problème ah. mais ñi nga xamante ne bii ñoo jëndee 3W point lamb diaspora ñooñu moom amoon nañu jafe-jafe seetaan lamb ji ci anam bi ñu ko bëggee. waaw mooy lu ma wax nag mooy jafe-jafe yooyu day am mooy coupé signal bu coupe ainsi de suite donc y a beaucoup de choses c'est technique donc dépendre ci lamb diaspora mais fi mu jëlee signal bi si ñooñu la dépendre et je pense que loolu yëpp dinañ ci gën a waxtaan pour fexe ba loolu am parce que ñun liñ la gën a déplané nga jaay nit dara ba pare te mënu si am satisfaction donc kenn bëggu ko donc ñun bëgguñu loolu. Uh-huh. mais bu amee aussi dinañ fexe xool ëllëg na lañ koy na lañ koy lijjante na lañ koy réglé. ñu gis combat bi fi mu mujjee est-ce que xaaroon ko ko foofu mu jeexee ci avertissement euh, ci décision arbitrale. non combat bi man amuma si honnêtement contenu combat bi moom dama si am satisfaction. Uh-huh. parce que gis naa mbëri bëgg nañ bëri nañ. Uh-huh. suñu borom mooy dogal xëy na décision arbitrale am na si mais boo xoolee mbër bu nekk def ko lu mu war a def. bon doole yi tolloowul mais mbër bu nekk def nga li nga war a def. donc tey am na réalité mooy tey am na décision arbitrale. donc mooy Tapha Tine am na ndam donc dañ koy féliciter. ki nga xam ne aussi moo ñàkk di booy ñaar démérité wul mais dañ koy encouragé pour que yeneen ñi ñëw si kanam mu gën a defaruwaat pour mën a am ndam aussi. Euh, gannaaw ba ñu ba booy ñaar jógee ci combat bi ñu gis tolof tolof bi nga xamante ne bii moom la ñu wax ne moom la ci jëlee est-ce que déggante nga ak moom pour masawu. waaw tolof tolof moom ñu ngi koy masawu ñu ngi koy masawu donc. je pense que woo nañ ko jotuñu ko woo yow euh, papaam jotuñu ko mais woo nañ frère am Assane. nga xam ne mooy léppam. donc explique ko wax ak moom. nekk wax ko ñi ngi koy seet mu seetal ñu ko ek mu wax ñun aussi ñu ngi ko bëgg a joindre heure bu amee jot bu defee si ñu waxtaan ci. Euh, lamb ji mën nañ jàpp ne Leewtoo production am na ci satisfaction totale. mais am na satisfaction totale parce que d'abord yegg na neex na nit ñi bëgg nañ sécurité bi li ñuy dem ci ragal yëpp dox na. donc pour man satisfaction parce que loolu lu koy wane mooy boo xoolee tey. turbine officielle bi boo ko liiroon xool ko bu baax ñu fa nekk presque kilifa yi bëri nekk ñu fa saran suñu donc mooy wane ni rek nit ñi xawoon nañ tiit ci sécurité bi uh-huh. donc boo demee ba prix ba ba ba nga génnee douze ou sept billets si si loge officielle bi uh-huh. loolu day wane ni kilifa yi ñëwuñu parce que xaw nañ ragal uh-huh. parce que c'est important parce que li ngay jaay si ticket boo xoolee statistique yi li nga jaay si loge officielle loge cinquante mille boo si jaayee dix nga si jaay boo xoolee dix yooyu ci loo xam ne deux cent cinquante deux places def mooy war nañu nit ñu mm-hmm. parce que ragal nañ sécurité bi. Mm-hmm. mais xale yi ñëw nañ jeunes yi ñëw nañ amateurs yi ñëw nañ parce que ñoom ba lamb la ñu dund. Mm-hmm. mais kilifa yi ñëwuñu parce que ñoom seen gannaaw ñu ngi xalaat insécurité. donc bu dee na bi am lamb ji jeex. jeex si jàmm rek satisfaction la. Mhm. donc ñu on a vraiment on a am nañ satisfaction totale si si làmb ji. Mhm. gannaaw ba nga ba làmb ji jeexee xam nañ ne contrat bi jeexul sa diggante ak ñaari mbër yi ba léegi. ndax am na face à face bu war a am. am na dernier face face bu war a am la war a am. donc xamaguñ ko mais ñu ngi siy réfléchir. Mhm. di xool parce ñu ngi dem si ay élections locales. bientôt. dugg si campagne te comme ñun aussi candidat lañu. donc à Mermoz Sacré-Cœur ñu ngi xool par rapport temps bu des comment on va faire pour organiser face face ou bien ça sera après après après la après kii bi yi ça dépend. Mm-hmm. mais daal ñu ngi xool fu gën a baax rek mu opérationnel dinañ ko def incha allah. Mm-hmm. Euh, léegi gannaaw ba combat Tapha Tine Boy Niang jeexee Leewtoo production fan la jëm yan journée moo nekk ci kanamam. non journée dinañ def yeneen journée mais pour le moment moom si élection lañ jëm. fa élection yi jeex ñu mën a dugg si ay ay ay. jeunes fi mu toll nii daal ngi ci politique bi quoi. oui parce que politique bu euh, même bu bu commencé même boo tëggul sa bu nit tëgg de difficile. Mm-hmm. parce que souvent période électorale période bu trouble la kenn du presque activité du am. Mm-hmm. bon bu jeexee nit ñi reprendre activité yi bu ñu reprendre aussi ñun aussi quel que soit les résultats on reprendra activité yi. amateurs yu bëri ñu ngi laajte tafaate kii Boy Niang Siteu. waaw nit ki tëgg nekk li ngay tëgg bëgg nga affiche boobu amateurs yi wax la ko. parce que lu ñuy tëgg yëpp amateur yi ko doon wax bi aussi bu ñu ko waxee yàlla def mu nekk suñu loxo ñu tëgg ko bu fekkee mu ngi si loxo keneen aussi ñu ñaanal ko accompagner ko si mu tëgg ko si jàmm ak salaam. Uh-huh. wax nga ko sànq yaa ngi ci politique bi. Hmm. politique bi boo bëgg koo booleeg promoteur du du metti. mais bokkul politique c'est c'est c'est mission la rek promoteur bi métier la aussi parce que. événementiel la métier la donc c'est professionnel boo ak li nga xam ne mooy politique la mission la yaay jël sacerdoce bi un fardeau la nga accepté ko jël ko pour doxal sa cité fexe ba sa cité ñi fa nekk euh, mën a nekk ci jàmm donc loolu mission la ça n'a rien à voir ak le côté professionnel Leewtoo production ñu ko doon gis mu doon def ay lit ay ay ay journée journée de gala simple hmm. euh, fan la ci toll mi ngi waajaat pour dugg ci àll bi waaw damee il faut mu amaat lu simple dina hmm. donc déjà def ci cinq jours na xawma ren hmm. mais ak covid bi ak tout ça incha allah ba élection yi jeexee on va continuer la lutte simple donc def lutte simple daf benn ou deux journées lutte avec frappe bu baax et puis ñu def loolu parce que ñi si yaakaar ñi si dund dafa bëri donc ñun waruñu ñu ñàkk ci làmb ji. il mhm. ñu si bokk di si dugg. Mhm. incha allah euh, bu ñu ñëwaatee ci journée Tafatine Boy Niang am combat bu am solo bu ci nekkoon. Mhm. waroon a am ci diggante Tanor bu Jurbel ak Santa Ñing. combat bi mujjee avorté mujjeewul am. Euh, euh, naka ngay naka naka naka naka lan ngay wax amateur yi ci boobu combat. bon combat bi mënuñu si wax dara xam nga këyitu médecin moom. dafa am solo. donc bu ñu ko wanee rek déjà argument la donc médecin bu attesté que nit ki dafa blessé. ki mënu ci dara. Hmm. dañuy jàpp ni blessé na indi na certificat médical bu ko war attesté. Hmm. médecin bu koy nekk conseiller aussi mënul def lu dul accepté loolu parce que c'est le même corps. Hmm. donc ñoo aussi dañ li ñuy def mooy fexe xool na la ñuy def bu ñuy tëgg combat ñu jëm ko ci dugal wala ñoom ñu utal leen combat. def journée boo xam ñoom ñoo koy diriger. mais l'essentiel ñun duñ ko laal dañ koy bàyyi CNG. Mhm. donc ba heure bu ñu amee fu leen dugal ñu dugal lañ fu ñu mën ko bëre. Mhm. macha allah. Pape Thialis lan mooy secret am. non amul secret secret moom amu ci secret mooy dañ nekk ci mbapat rek ba léegi. parce mhm. que ñu paree mbapat ba léegi ñu ngi si mbapat bi. ba léegi dugg goo ci arène bi. ci mbapat bi kon dañuy rek. kañ ngay dugg ci arène bi. ah parce que bu ñu toppee Père Gaston joxe. joxe validé <laughs> validé suñu kii rek ñu dem ñu dem ñu dem defi combat moom la xaar. waaw bu ñu defee examen si moom moom fu mu nekk nii moom baax na mën nga dem. tubaab mhm. dugg si arène mais pour le moment moom daa ñuy mbapat rek. Mhm. waaw kàddu mu mujj gi. bon gërëm ñëpp ah gërëm surtout sénégalais yi gërëm aussi amateurs yi gërëm ñi fa ñëwoon ñëpp ci seeraan si làmb ji. Mhm. di regretter juste rek peut-être benn ñaar oto yi ñu si toj yoo xam ne peut-être c'est normal nit ñi mënoo leen maîtriser yëpp à cent pour cent donc jël xeer sànni ko sànni yomb na donc xeer boobu. xeer boobu xëy na tey toj na oto oto nit koo xam ne xëy na moom am na maîtrise waxtaan ak ñun wax nañ ko nan la war a def mi ngi koy def mais loolu rek lañ si regretté sinon le reste moom mooy remercier sénégalais yëpp amateurs yi parce que gis nga ñi nekkoon ci biti moo ëpp ñu nekk ci biir donc parce que affiche moo tolloon noonu donc bu yàlla defee nag ba dogal ba affiche bi ak li ci am lépp làmb ji jeex si jàmb ak salaam dool lu du ànd ak mbégte donc mbégte la ñu am ak tout équipe bu ci nekkoon ñëpp di ci liggéey ñu seeg ñu ko coordonné ñi si jàpp waa Leewtoo yi euh, euh, Abdoulaye Khady Ndiaye Max Margan suñ coordonnateur ak bépp nit bi si jàpp rek ñu ngi lay remercier di la gërëm donc euh, di remercier aussi sponsor yi c'est important donc j'adore ñu ngi koy remercier donc moom toujours fu ma doon wax mooy premier sponsor bu ci nekk donc def si xaalisam toog ak ñun ak promoteur mu toog lu yàgg dugal xaalisam gisul benn activité bu bu promoteur bu def par rapport ak Covid bi donc mu dem démarché sponsor indi donc dañ koy remercier remercier walo LONASE donc remercier le président la Diop bi nga xam ne la accepté soutenir làmb ji donc euh, à travers production di Pacte Foot aussi di remercier seen seen seen directeur bi ji remercier aussi APA donc directeur APA donc Atlantic Petroleum Africa donc Momar Diop ñu koy remercier aussi donc di remercier bépp sponsor et bépp partenaire bu si jàpp donc sans oublier aussi la la la TFM quel que soit yenn bis bi yu ñu am mais aussi ils sont professionnels mm-hmm. et je pense que aussi ñu ngi leen di remercier bu baax di leen gërëm di wax ni vraiment on avait un partenariat ak ñoom te mu ngi continuer ba ba ba dernier face to face bi ak yeneen télé yeeg site yeeg internet bi presse bi yëpp en général jàpp nañ si si dernier semaine la communication moo tax làmb ji toll foofu donc pour vous communication moom c'est pas du début bi rek mën nga bàyyi ba à une semaine ba si ñëpp jàppee sotti donc on remercie tout la presse sénégalaise mi écrite mi presse en ligne di di télé ak di rajo Euh, mënuñu tàggatoo te te du ma la laaj ci suñu naataango yi nga xamante ne bii. face to face bi mujj na am ñu ci bëri dañu leen envoyé ay réclamations. Mm-hmm. ñii ñu bloqué seen seen defe naa bi laa ci jeexee loolu amul de. non loolu amul loolu amul parce que incompréhension la woon. Mm-hmm. donc mais tey jii xam na ni sécurité am na. solo mm-hmm. que la moo si am solo. nit ñi xam ne vraiment que lii am na sécurité. donc ñoom ñëpp reconnaître nañu sécurité bu ñu yore. baax na. maintenant xool déwén la ñuy def saison prochaine. ba fexe ba ñoom ñu en partenariat ñuy fexe di liggéey ensemble parce que presse en ligne c'est vrai amuñu doole mais nañu war a jàppale promoteur bi sur la promotion du combat. Mm-hmm. donc ñun képp ku ñu jàppale promotion bi rek incha allah pour nga dugg euh, couvrir luñ def amuñu ci problème. Mm-hmm. donc cette presse là aussi c'est une presse à remercier et que ñu xamante neen waxtaan neen jubóo neen bii combat ba mu jeex ba léegi déggoo réclamation kenn woowul kenn wax la dara. par rapport ak bu parce que këyit naa bu njëkk bu fu nekk la la gars yi woowee. waaw mais parce que dañ ko formaliser teg këyit bind ko liñ bind si këyit bi bu ko ki nekk appliqué li la war du am problème. Mhm. et je pense que loolu lañ def ba léegi kenn amu ci problème. Mhm. Mhm. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Thialis waaw jaajëfal di nuyu équipe bu Leewtoo bi yëpp. parce depuis depuis très longtemps ñu si nekk di jàpp. Mansour Fall le benjamin des caméramans sama ndaanaan bi. Mansour Fama Bilal Kébé mhm. Ndeye Mbacké mhm. donc Aïda Matou mhm. Ousmane Ousmane yow yow ni bay Babacar donc y'a les autres ñoom Maysa donc ñëpp ñu fi jaar waa waa miir ñu ñu fi ñëw ñoo xam ne jaar nañ fi sax jaaroon nañ fi ñàkk nekkaat feneen ñoom ñëpp a si jàpp parce que c'est c'est c'est une continuité donc ñëpp ñu ngi leen di remercier donc euh, di wax ni en tout cas Leewtoo alalu askan bi la donc euh, nañ si jàpp ñu ñëpp bu baax et ça ira incha allah. jaajëf jaajëf merci.